aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ahmadou kara jaamu sëriñ tuuba xaadim rasool yéen bokki taalibe jaamu sëriñ tubaa moo leen di nuyu di sàkk ku fi nekk ku ne mu waxal ma seex muhammadul muntaxa yàlla na fi yàgg te wér bu noppee nañ ma ci tegal sama sang sama sëriñ sama wayjur si Ahmad al Basir moom seex Ibra Fati yàlla fi yàgg te bu loolu noppee njaboot gii ma àndal mu njabootu borom laalu damay wax nit ñi ne leen ndaje murit ñaari sëriñ Tuubaa mënu fa am waxuma la nag ñett lu ñu bari bari bari benn sëriñ Touba rek moo fa mën a am kan moo fay sëriñ Touba njabootu sëriñ tubaa bi man duma fi dara lu dul jaamu Serigne Touba képp kon ku bëgg la leen jëlal ma leen di wax ne su fekkee dañu bëgg a fay sëriñ Touba ci lim nu lebal fan teg Muhammadu Rasulullahi buñ ko fa munta tegit war noo teg Serigne tubaa fi barab ba ñëpp xam ne teg nan ko fan la tegoon sëriñ tubaa bëgg ko lool di jooy ci moom di ko tagg guddi ak bëccëg nekk na fi barab réer nit ñi nim daa def ci kër gi walla ci àll bi ñu di ko wër ay gone yu nekk ci ginnaaw perma ñoo far weñ ak weñ rasool weñ gu ñuy wax rasool ci la sëriñ Tuubaa daanu ba génn ci bitti na nañ ma seetal fere yi tollu barab sàngam waaye bu ñuy ñëw lañu far buñ ko fa ba sët tët bi ñu mu ne wax leen ma li ngeen far lu ngeen di def baa jotti di neexal gone yi ba jot ca weñ nga ba mu ca tàmbalee sotti sikki sikki mooy lañ ko laj ba tàmbali ci barkeelu bu du woon xam ngoo xam sëriñ Touba bu la mayee mbumba doo ko soxla ndax xumaat ci sëñ Balla Dieng Fall yi ñawal na ko mbub moo xam ne ci ñàkk boppam la ko jënd ñawal ko boppam alxuraan lay tari bu jàppam tojee mu jàppaat ba yére yi noppi mu andul ko sëriñ Touba Xaadimu Rasuul loo ko mbasa jox ndox la cay laal soog koo sol waaye léppay wax ak moom bi sëñ bi see jox ko yére yi daa jóg sol <laughs> mi ngi mi ngi natt nag mbubb mi hmm. waaye boobu jiba nag daa bareegul te sëñ bi def ci jiba ki ko doon ñëw def ci jiba loxoom dugg ci jiba ji mu ne lu luñ ci jublu ku mel ne sëñ Kara moom sëñ Subayru xam naa daa bëgg mbubb ma daal di ne nun de mbàkke bu dee nun la bu nu amee sunub dëlum ci lañ ci la ñu koy denc la sëñ Tuubaa def ne su mbubb ma daal ko ne taxañ taxañ dal ne xër mbubb ma dal ne yàlla nu yàlla musal ci jiba jiba tolloon naa ko xol li boo ci defee dara taxaw sa digg sa borom mu yëngu leneen nekk fa lu dul sa borom yàlla nu yàlla musal ci jiba nekk na fi barab di tagg muhammadu rasulullah ci néeg boo ko joxee këyitu xaalis day wax tegal foofu nga jox ko paset mu ne tegal foofu day mujj këyitu xaalis bi ay jal lay def ay naaf këyitu xaalis yi def ab jal mu gas ba mu xóot mu suul mi ngi tagg muhammadu rasulullah ba mu yàgg am porox ndoll bu nekk ci néeg bi di naawal këyit gi fekk këyitu xaalis bi bari lool mu def bëri ne ci kayitu xaalis bi nag di def ci bën bëni néeg bi noox noox di ko sakke bën bëni ak a wuteeg sama naar yi <laughs> naar yi nuñ bëggee xaalis seet teet teet wolof bi bi muy naawal kayit gi sëriñ bi doon tàggee Muhammadu Rasulaay ci la sëriñ Tuubaa sango soog a nangu walaal xaalis bi bu dee nëq ci kayit gi def ci bën bënu néeg bi noox ba néeg bi ba bën bën bi fees <laughs> am ku fa nekk muñ mu ne ko loolu muñ mu ne ko ah, Mbàkke wuute yow xalaati lii mu ne ko na xam ñoo ci yam xalaat kat ndax lu ci waaye am lu mu bari bari fàtte buntu rek la koy doyee fàtte buntu kon man bunt bii bëgg a yàq li may liggéeyal Muhammadu Rasulullah benn bunt gënul maa ñor ci fàtte ko seen maama ngoog koo koy Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul fam tegoon yàlla lu ko waral añam ba waaye añ ba la muy kenn mayu ko kenn saraxu ko da koo jënd ndax bu fa bakkanam loolu des des xoolal nun nag sun añi kër yi ni mu lay dajaleel silla jaxate faal amar jóob sant mu ne andil teg kenn ku ne benn moo liggéeyoon ca añu kër ga di ca añ ba nekkatu fa bàyyi di fa añ ba nekkatu fa muy dox ba tàbbi ci loxol gone yu mel ne noonu koo ci seen muy wéy ci loolu nga ne ko loo defal du ko xam añ bu rëy boobu ñuy aña tey dajale nu rek bañ dajaloo lu wut sawala tegal nu wutal sawala nun toll rek na ko soy yi toll ku ne ñu la maral soy bi waatal añ bu rëy bii ngay añe nga xam ne këla gi yoon añ bi sax amu ko ci waatal su fekkee yow àq joo jox yàlla moo fi bàyyi añu kër baam diw bi ku waat lakk koo ci ne waat su fekkee sa pas-pas bu ma sëkk boo am sa digg ak Serigne Touba ndax moo fi bàyyi añu kër maam diw bi ku waat lakk koo ci ndax sa jaamu yàlla gu sell gu rafet ndax moo fi bàyyi añu kër maam diw bi kaay waat ku waat lakk ñi mel ne man sax def nañ lu yàq añu kër yi bu doon yàqu Serigne Touba yoon ngoram gi nëbb ci suñ goreel gi yoon matam gi nëbb ci suñ manqué gi yoon mbaaxam gi nëbb ci suñ doy waar gi kër bu ne la fa newoon mu di ko dolli guddi di ko dolli bëccëg loolu war a fay Serigne nekk jaamu Serigne Touba rek lan war a fayee Serigne tubaa maa nag samay sang doon seenu jaam ñëw ci barab bi jële ju jësul sang ba nag ay kàddu bi ñuy ñëw ak bi ñu egsee mbégteem rek rek laa leen bëgg a xam nga lu mu waxa ah? su ma mënoon teew maay teew mu ne ko yoroon ay milliards di ko woo gànnaar du ñëw am ministre bu ko doon woo gànnaar du ñëw takk daala di ko woo du ñëw waaye lii ñuy def moom ku ko ci woo su mënoon a ñëw moo ñëwal bopp seet ànd ak nag ñu sell nag te baax gone yoo xam ne du ñu ay gone de yu mat sëkk ndax naag ñoo ma dëkk te nit mënut a def lu ma xamul doonte buñ ko doon def awma ci soxla defuñu ko ñu ànd ñëw ci bis bii ak barab bii fekk si kan duñu wax sëñ Ibrahima Diop fekk si gànnaar gànnaar gi mu fekk si nag lu leen fekk bëgg sëñ Touba sëñ Amar yëf yaa ngoog leneen lu ngeen defee ne daraa nga ci lu dul bëgg sëriñ Touba nax la sëriñ tubaa Xaadimu Rasuul dafa toog ñaareel woo sëñ Alaaji sëñ Malick Ndiaye sëñ Malick Ndiaye nag bokk na ci ñi daa li jottali waxi sëñ bi dafa amul doom ju góor bàyyiwu fi doom ju góor Malick mu ne ko Mbàkke mu ne ko waxal waxal ma fere yi ginnaaw tisbaar nañ génn ci bitti dafa am lu ma leen bëgg a laaj sëñ Malick njaar jaar ci mbedd njaareem yi fu ne ba dugg fa ku baax ku suñu yaakaar te ëllëg Serigne tubaa nee na ginnaaw tisbaar nan génn dafa am lu mu la bëgg a laaj ñëw ci sëñ Touba ne ko ah Mbàkke ñi ëpp yëg nañ ko de mu ne ko dellu mu jaar fam jaaroon wax lam waxoon dellusiwaat ci Serigne Touba mu ne ko dellu ñetti yoon Sëriñ Tuubaa nag bu daa génn ci taaliba yi teraanga yi day génn kafe yi suukar yi ataay yi satala yu bari ak muqalaas yu bari muqalaas mooy weñ goo xam ne day dem ba ca kaw mu lëmb ñu fob satala gi wékk ci matum jalabaan mi ne ci suuf bi satala yi tolloo ci bax la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul si toog nam daa toogee fu mu la yàgg waaw oh. jàpp ca bopp ana Malick mu ne ko Mbàkke maa ngi nii mu ne ko Malick laajal na fere yi ndax bëgg lañu Malick laajal ma fere yi ndax bëgg nañ ma sëñ Malick ñaay ne ah sunu yaakaar tey ëllëg Serigne tubaa Xaadim Rasuul nee na ndax bëgg nañ ko satala yu bax yi yépp gaa yi dañ koo jël naan murit yi benn satala desul ñi amul satala ña nga ca galab ya yooxu yi jib barab bi lëj lool sëñ Tuubaa na teg ab diir na Maalik wax leen ñu dal te tontuma ci li ma leen di bëgg laaj li ma leen di laaj laajal ma leen ndax bëgg nañ ma ñu ne ko màkk yee ma ne woon laa ko yàlla bind mu ne Malick lu ñu wax mu ne ko yemale wuñ laa ko yàlla bind mu ne wax nañ dëgg mu ne ko waaw ñii bëgg a rey seen bopp kay Mbàkke xam nga ne yemale wuñ laa kenn mu ne hmm, Malick wax leen ne leen man day bugguma leen Malick waxal fere yi na leen man day bugguma leen Malick waxal yi na leen sama xol bi dara da cee xaju dul yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam teg kenn waxatul kenn jooyatul kenn yëngatootul ñëpp tiit mu ne cellaat ngir ne Malick mu ne ko ak bu dee li ñu wax dëgg la de war nañoo sant yàlla <laughs> Malick mu ne ko Mbàkke mu ne ko bëgg naa yàlla bëgg yonent bi liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi ba àdduna lu ma fi soob mën naa ko àllaaxira lu ma fa soob mën naa ko koo bëgg a dimbali àdduna mën naa ko koo bëgg a dimbali àllaaxira mën naa ko waaye li ma mënut mooy dimbali ku ma bëggul wax ji nag mooy fi mu daanele mu ne waxal fer yi ne leen ku ne mbëggeelam lu mu toll ci man ak pas-pasam su ma koy dimbali na la ni man lay toll seen maama ñu bëgg Serigne tubaa nga kuy xool ku bëgg Serigne Touba tëb leen feneen fu wër du ko fa gis nekkut ci ay oto nekkut ci ay milliards yëfi boppam la te yéen ñu bëgg Serigne tubaa nga ñu leen di wax ne. sang yi ma àndal ñu ñëw fi xiifuñu leen maruñu leen Sénégal fa lañ leen regge màndi leen fa soog a sol seenu daal la ñëw fi xam nga lu ko waral borom daalu nee na nit ku moom boppam doon asgor gis la fab ko jox la doyaloo wala mu joxe ko fi barab gis la yamale laa kam ko jox doyaloo wala mu gis la def la ne boppam doyaloo ku dul doyal nga dajal koo def lii doyalut nangul la nga ko joxoon ndax boo doon dajale àdduna ak li ci biiram yépp jox ko du ko tax a ñaari tànk lañ fi ñëwee nag benn bi mooy ndigalul sëriñ bi benn bi mooy sàmb si njaboot bi gaa njabootuk sëñ Tuubaa gi téema leen a wax li ñuy def ci àll bi gànnaar gi France Italie Belgique ak fu taalibe yi nekk xam nga nu mel la àll bu lëndam taalibe yi nekk ak jur ci biir àll bi mu am naanu am parole buñ naanee ca naanu bi ñëw for ci parole àll bu la gën a lëndëm moo la ëppale bi àll gaynde mën na faa nekk segg mën na faa nekk mëfër mën na faa nekk kon jur gu ci wëtt te amatub sàmm léegi mu am lu wëtt lu jofewut lu bari sëñ Ibrahima sëriñ si nee nañ ma bàyyi man jaamu sëñ Tuubaa bi ma dogul leen ku ne lam bëgg ñi fi teew ak ñi fi teew ku li lam bëgg balaa déwén na ko am <coughs> te li tax ma am ci yaakaar day sëñ Abdou Khoudous sëñ Abdou Khoudous moo ne nee leen Moodu lu mu yaakaar yàlla dana ko eggaleel sëñ Abbas lu mu waxoon nee leen Moodu fu mu bëgg a egg dana fa egg sëñ Cheikh Khady lan la wax nee leen Moodu lu mu yéene ci jaami yàlla yi yàlla dana koo ci defal ku xam ñooñu nag xam ne lu ñu wax loolu yàlla mën na koo def gën ci nit ñi taxut gën a ragal yàlla taxut gën a maandu kenn taxut waaye lu ma liggéey la ñu leen di wax ne lii ñu leen di sant ci gàttal yéen jullit yi du ma wax yéen murid yi de loolaay tëjee yéen jullit yi dëkk fii suñ leen fekkee nekk benn dolli leen ko bu ngeen nekkul benn nekk leen benn xam nga luñ ci jublu <coughs> lii ni yéene lépp mënuñu koo am ci lu dul lii mën na noo yor dangay ngay ñëw doon ab lu bokk ci sëñ Tuubaa gis nit ñu ne la day faatu te du ko xam du ko yëg nga fexe ba du faatu ci darajee rasulullah ak la la yàlla may gis koo xam ne kaso la jëm nga xam ko te du ko xam nga fexe ba du ca dem te doo ko ko wax kon li am doonul bëgg fi dara waaye damaa bëgg ngeen xam ne buñ fi ñëwee bëgg leen dimbali rekk a tax ñu yow waa kër Serigne Touba yi fu ñu dem Serigne Touba nga fa may wax amal Sal Sala te wa yoo euh, ak foo xam ne ci ci gànnaaw lu ñu fay defati man bokk naa <coughs> suñ ma gisee bokk naa suñ ma gisut bokk naa ndegam dafa guddi nag li ma bëgg a wax daal nekk benn gi moom. ci jullit yi laa ko wax borom borom borom Tuubaa de moo toog di giñ di giñ ki ko fekkee nee na de dafa toog naan billaahi <laughs> wallaahi tàllaahi ñëpp na cell mu ne saa borom xamal na ma ay jullit ay jullit yu dëkk ba noppi nekk benn saa borom ma lu muy séddale ci yërmaande mi xéewale mi du leen fàtte waaw ne cell mu daal di ca billaahi wallaahi tàllaay saa borom xamal na ma ay jullit ay jullit yu dëkk ba noppi nekkuñu benn saa borom nee na ma lu muy séddale ci alkandeem yeeg musibaam yi du leen fàtte dégg nga loolu billaahi wallaahi tàllaay saa borom ma jullit yu dëkk ba noppi nekk benn saa borom nee na ma lu muy séddale ci yermaaneem yeeg xéewaleem yi du leen fàtte ñu ne cell mu ne billaahi wallaahi tàllaay saa xamal la ma ay jullit yu dëkk ba noppi nekkuñu ñu benn saa nee na ma lu muy séddale ci alkaneem yeeg musibaam yi du leen fàtte waaw jërëjëf daana gan nekk benn loolu la ca teg de gan nekk benn ñu ne ko am ah, Mbàkke leeral na ko mu ne waxuma kaay naañ waxuñu kaay leen leer ñu ne ko am ah, Mbàkke kon looy bëgg a wax mu ne buñ fa boon sawara tàngal ay weñ ba mu tàng ñu koy jox jullit di kenn par kenn kenn ku ne day ñemee waat waat naa ci sawara wi li may yéene saa bopp yéene naa ko ñu ma nekk sëñ Tuubaa ne bu tàmbaliwut foofu baax na bu tàmbaliwut foofu rek baaxul kon buñ leen fekkee nekk benn dolli leen ko su ngeen nekkul benn nekk leen benn yéen fii nag bokk ci borom daal bëgg na ma bëggoon na maa wax ak yéen mu xat lool waaye dinaa ci sànni tuuti yéen a bokk daalu kenn ku ne boo sañoon lu ñuy def daalu mel na mu yow yaa koy def te mën naa nekk ndax bu ngeen nekkee benn lu ngeen yéene def sëñ bi ñaan ngeen nekk benn fu ne dara ne fa baax na de waaye nekk benn ko gën kenn ku ne nag bu ngeen booloo ba nekk benn kenn ku ne am nga sab tool boo ca bëggee dem nga dem loolu mooy ku ne am nga sab sëriñ loo ca bëgg def na nga dem def ko ca waaye nekk leen benn def daayira yi fédération bi benn nit loolu sëñ bee ko ñaan te jottali naa leen wasalaamaaleykum wa rahmatulah.